Binta Camara bu Tambacounda jigéen la waaye jàmbaaru góor la euh, dontele la xeex na ba saay-saay bi la mu bëggoon amu ko waaye ñàkk na ci bakkanam voilà ci loolu la organisation yu bari sukkandiku def pression ci état ba ñu voté la loi deux mille vingt zéro cinq du 10 janvier 2020 bu criminaliser viol loolu mooy criminalisation maanaam kenn dootu leen jugé ci juridiction ordinaire yi mu di correctionnel ak flagrant délit léegi dañ leen di yóbbu cour d'assises waaye criminalisation tekkiwul ne dañu lay tëral rek ren di la euh, beneen masala drogue loi bi fi amoon en 1966 mat na sëkk aajotul ñu di jox ko virgule pour parler comme almeeru ñing waaye trafic bu drogue bi yematul rek di xale yi nekk ci bopp comme yi di di muxi yamba léegi ay gros bone yu nekk ci état bi ba Moustapha Cissé Lo wax procureur ne ko na ma procureur woo ma wax ko ñan la ba tey procureur woowu kon dem na ba jéggi dayoo moo tax ñu jàpp ne loi boobu doyatul loolu moo jur la loi 2007 31 du 30 novembre 2007 bu criminaliser le trafic de drogue ngóor jigéen aussi article 319 bi nga xam ne la loi 66 16 bu 1er janvier 66 moo ko jur loi boobu doyoon na sëkk ci wàllu góor jigéen a aajootul woon ñu di ci yokk virgule en 1966 waaye en 1966 xel demul góor jigéen bés bu tedd bu day ni guddi woo mawludul nabi fii ci Kaolack nga di fa takk fukk sëy ak benn amul woon en 1966 ñaar fukk ak juróomi lesbienne góor jigéen yu jigéen ñëw fii ci Thiaroye Léona dajji këru benn ancienne lesbienne bu tuub ñu ne ko lu tax nga ñuy bàyyi di delluwaat ci mbaax loolu amul woon ci 1966 kenn mënu ko lim ba mu jeex ba bi ci gën a ñaaw te xari jullit yëpp ak ku dul jullit mooy la nuit du 23 novembre 2020 fii euh, ci bërëb bu tedd bi nga xam ne suñu borom moo wax ci suratul jinni wa anal a lillahi jàkk yi sama néeg la ñaari góor jigéen dugg fa trois heures du matin di sëy loolu amul woon ci 1966 waaw nga bëgg a ne nag loi bi ba tey baax na baaxul de mm-hmm. tey yàlla dogal na nag suñu borom ku mën a àtte la ils ont été démentis par le ministre de la justice bi libéré woon góor jigéen ya doon takk sëy guddi mawlulu nabi le vingt cinq décembre ministre boobu moo leen démentir ñoom almiri ñu ngi wax naan loi bi baax na ministre bi démentir na leen si Sidiki Kaba bañ ko laajee lu tax nga bay góor jigéen ñi lii la tontu c'était dans l'observateur du samedi 9 2016 nee na aux yeux de la loi il n'y a pas d'homosexuel lii du waxi ànd sàmm ji ko aux yeux de la loi homosexualité amul waaw ba pare nga naan nag trois cent dix neuf yi doy na doyatul parce que ministre bi si boppam moo wax ci wolof ne ma ma tàkk ko ci wolof nee na ñooñu li tax ñu bàyyi leen malgré jëye ji ñu def parce que article trois cent dix neuf tuddul baatu homosexualité kon nag lii ànd sàmm jikko yi def état la waroon c'est-à-dire ànd sàmm jikko ngi taxaw pour réajuster loi bi ndax mu dëppook jamono kon Macky Sall dafa waroon gërëm Babacar Mboup gërëm ànd sàmm jikko yi ndax moom la waroon. voilà léegi nag ñun sàmmante nañoo ngi yoon jaar ci ay professeurs de droit ay juristes de métier et des parlementaires souverains ba ñu liggéey ko ba euh, euh, nu mu tuddati matandi gi newoon ci article trois cent dix-neuf léegi ànd sàmm ji koy matal na ko parce que neewutuñu rek acte contre nature dañu ne l'article trois cent dix-neuf criminalise l'homosexualité criminalise le lesbianisme góor jigéen du jigéen ñi criminalise la zoophilie parce que weer wala yéen presse bi yéen a defoon benn reportage fii ci banlieue góor jigéen bu ñu jàpp muy tëdd ak béy criminalise la nécrophilie maa ngi dégg euh, seen président groupe parlementaire euh, euh, président commission des lois bi woon kii xuloo waale Cheikh Omar Diagne bi. ay kii. Ah, Jibril Waar naan xanaa waa ànd sama jikko yi ñoo gis kuy sulli néew di tëdd ak moom ñoo yaa gën a tey ne waxuñu loolu. ñiy dem ca morgue ya di tëdd ak néew la ñu wax te am nañ ci ay preuve kon nag loolu yëpp la ànd sama jikko yi lim pour lay bañ a am kon ñoom ñoo waroon gërëm ànd sama jikko yi parce que liggéey bi seen liggéey la ñoom alors amuñu lu ñuy def na lu di ko galgal euh, coordonnateur bi nag wax na lu leer le combat na fekk commencé. incha allah woo bii ñu leen woo tey mooy jéego bu njëkk bi. Mm-hmm. incha allah ci diggante bi dana am jéego yu bare bari waaye ba ca gën a mag ca cappaandaw la mm-hmm. te ñu ngi profité mm-hmm. woo Sénégalais yëpp ku bañ mbon ku bañ ngóor jigéen ku bañ lesbianisme ak ku bañ kuy jàppale góor jigéen ku bañ député buy jàppale góor jigéen te bëgg a faluwaat député ñu nga lay woo ci bés boobu incha allah su boobaa dinañ leen wan senegal sa ça appartient au peuple sénégalais Sénégal lobbi góor jigéen yi moom moo ko allah macha allah